ñu ngi altine ñaar fukki fan ak euh, juróom ci weeru novembre atum 2024 ami internet yu seen teranga am nañu mbégteeg bànneex retrouvé waat leen ci seen teranga matinal euh, comme ni ngeen ko xamee bés bu yàlla sàkk dinañ ñëw ak yéen wàllum actualité mais itam dinañ leen ko décortiquer en fond ba ngeen gën a comprendre lan moo gën a xew ci suñu biir réew ak lan moo ko sabab ngir ànd ak euh, boobu lépp waxtaan nag duma ci wet tey seen xarit ki ngeen tàmm di ko gis ci écran yi muy Abdou Nguer moom laa ci àndal Abdou maa ngi lay nuyu la nga nuyoog internet yi waaw maa lay fay di nuyu internet yëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ñu ñuy ñaanal bis bu set. Mm-hmm. ñu man di teew waxtu yu jotee. am na solo di sàkku itam ñu ñuy ñaanal saa su nekk ngir rek ñu mën di teew fii di waxtaan ak ñoom waaye itam di leen bëggal eh, di ànd ak ñoom di càmbar lu xew ci actualité bi alors pour ñu door waxtaan wi dinañ waxtaanee lépp lu soxal mbirum actualité mbiru Samuel Sarr waaye tamit lu soxal mbiru Ron Yefet itam dinañ si ñëw Abdou Nguer am na ci ay information yu majeure yu mu leen war a dégtal lu jëm itam ci li nga xamante ne moom moo soxal assemblée bii di ñëw ban taxawaay lañ ci war mën a am loolee itam dinañ ko waxtaanee mbiru Abir Amir Abo ñu koy dégg saa su nekk eh, ci actualité bi naka la mbir moo mu demee itam dinañ ci ànd ak Abdou Nguer euh, mu ñëw ak ñun ci biir euh, la gën a fës ca boobule mbir leneen itam li ñuy dab ci wàllum actualité dinañ ko waxtaanee euh, ngir rek càmbar ko ba mu gën a leer waaye balaa ñuy door waxtaan wi dañuy jaar di càmbar lu xëtu yéen a kaay xëye bisu tey ji altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre bu jingal bi wàccee. li xëtu yéenekaay xëyee dañ koy door ak yéenekaay bii di suñu jant réew le soleil national la soleil daal di ñëw sëgg càmbar am euh, assemblée nationale bi ñu dëgmal ak mode d'emploi bi maanaam taxawaay bi biñ ci war a am lu soxal mbiru installation bi élection président bi ak lu soxal euh, mbiru tegub commission yi daanaka loolee yëpp danañ ko daal di daaral ni mu gën a daaree loolee ngir mën ñu may ñu voté li nga xam te moo di budget atum 2025 euh, bu ñu jógee ci proclamation officielle soxal mbiru résultat élection législative yi ñu génn ci conseil constitutionnel lu jëm ci processus installation wu quinzième législature bi daanaka dinañ ko def eh, ci anam gi mu gën a daaree loolee yéenekaay bi di la Soleil moo ñu ko xamal li ñu mel nag ngir ñu mën a voter lu soxal mbiru loi de finance atu 2025 Ousmane Sonko ci waxtu woowule eh, waxtaan nag député yu Pastef mu jàpp ne nag assemblée nationale bi war na nekk assemblée nationale bi ñuy war a jubaleeg askanu Sénégal ngir ñu mën a gis seen bopp sinu assemblée nationale di doxee bu ñu jógee ci la Soleil yéenekaay dañuy dem ci Vox Populi Vox Populi itam ñëw ci bras de diggante ñu yor wàllu mbalit mi di ko saytu ak ñii di état bu Sénégal lu toll ci fukk ak juróom-ñaari juróom-ñetti milliards ci suñu koppar daanaka moom mooy capital bi nekk en jeu ñeel li nga xamante ne moom moo jëm eh, ci anam gi ñuy war a anee mbalit mi ak ña ko war a liggéey daanaka lañ leen war a jox eh, ci koppar beneenub eh, yéenekaay di Le Quotidien moom ñëw ci bataayub actionnaire yi diggante ndox ak gaz daanaka dox na ci diggante ñoo xam ñoom ñoo ko daal di sekk loolee la mu bëgg a rek moom mooy mbiru Samuel Sarr bi nekk en garde à vue foofu la ca gendarmerie beneenu plainte tamit daal di jëpp mu mel ni plainte ak ki bi ak ki fi nekkoon PCA bu Sénélec beneenu yéenekaay di Walf Walf Quotidien moom dafa ñëw eh, ci traque au bien mal acquis foofu la ca bitim réew mu mel ni nag ñi àndoon ak Macky eh, seeni wet ma ngay gën di gàll góose bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Walf Quotidien beneen yéenekaay di Enquête Quotidien euh, moom itam dafa ñëw ci lu soxal mbirub euh, laata ñuy yegg ci combat Modou Lo ak bañ ca yeggee ak gannaaw bañ ca noppee daanaka njàqare la askan wi di yeewoo la ko sabab mooy euh, série d'agression yi ñu nemmeeku waaye tamit ñàkkum dal gi ñu nemmeeku ak ñàkkum kaaraange ci biir banlieue bi loolee la yéenekaay bi di Enquête Quotidien daal di xëy càmbar ci xëtam bu njëkk beneen yéenekaay di Les Échos feelu ko muy xam ne ne Modou Lo ma ngay wéy di garder lii di titre am eh, ci kanamu Siteu bi nga xamante ne mën nañ jàpp ne ab héros la ca boobu lépp combat ndax wane na ci boppam eh, bu baax a baax cinq quinzième législature sénégalaise bi daanaka métier eh, genre ak at yi nga xamante ne député yi daan nañ koy am loole itam les ko daan na koy càmbar ñëw ci lu soxal mbiru assemblée nationale bu yees boobu la jàpp leen ne juróom benn fukk ak juróom ñetti jigéen ñoo ci nekk juróom ñeent fukk ak juróom ñaari góor tamit bokk ca boobu lépp assemblée nationale moyenne d'âge bi ñu koy xayma ci lu néew néew Euh, daanaka yegg na ci diggante 47 ans euh, jàpp li nga xamante ne euh, moo di 26 ans noonee la ko yéenekaay bi di Les Échos daal di càmbare jàppale na nag ki gën a tuuti ay at ca boobu lépp assemblée nationale mu ngi wuyoo ci turu Anne Marie Yacine tin bokkee ci liste Pastef moom mooy kookee di feeñ ci nataalub Les Échos beneen yéene kaay di l'Observateur ñëw sëgg càmbar mbiru Samuel Sarr ak la nga xamante ne moom mooy la ko soxal si po yoon kon du l'Observateur ñu daal di àddu wax ci li nga xamante moo di L'As Quotidien ñëw ci mbiru Samuel saar la daal di ñëw gannaaw bañ ko interpellé moom Samuel Ahmed Sarr lu soxal mbiru arrestation am lan moo ko sabab yéene kaay bi di l'Observateur daal dina si ñëw euh, càmbar ko bu baax a baax moom mi fi nekkoon euh, directeur général wala ki fi nekk directeur général bu Senelec di Pape Toby Gaye moom itam déglu nañ ko ñeel mbiru Samuel Sarr boobule ñuy wëy ak beneen upp yéenekaay euh, di L'As Quotidien moom itam ci mbiru Samuel Ahmed saar la daal di des nañ ko tegee loxo la ko sabab loolu yëpp yéenekaay bi di L'As Quotidien daal dina ci xuus waaye beneen upp yéenekaay di Libération moom itam feelu ko ñëw ca lu dox ci diggante West African Energy ak guerre totale bi nga xamante ne am na ci seen biir la sabab ñu porter plainte kii di Samuel Ahmed Sarr jóge euh, ci ki nga xamante ne moo di DGO Libération moom itam daal di si ñëw bu baax a baax sëgg càmbar mbiru itam euh, Abo wala Amir Abo la tax ñu teg ko loxo passeport diplomatique ba mu yoroon ak lépp lu tukkee ca boobu lépp coow yéenekaay bi di Libération daal dina koy càmbar yor-yor bi lañ koy daal di ndar keppe euh, moom itam ñëw ci Pastef ak séminaire parlementaire noon def foofu foofule ca sali Sonko daal di jibal ab discours magistral nu ne la ko yéenekaay bi daal di xamle jëm ci taxawaay yi député yi war a am rawatina ñu bokkee ca Pastef bu ñu yeggee ca pencum ndaw réew ma lile moo ndar képp xëtu yéenekaay yi nees kiis bu jëngal bi daanoo soxna Ndeye faatu ñu daal di sóobu nag ci waxtaan wi ak Abdou Nguer ñu ngi leen di jaajëfal euh, ñu daal di soobu ci waxtaan bi Abdou Nguer fi ma bëgg a tàmbaleeg waxtaan mooy démb combat royal bi am diggante Modou ak Siteu euh, bu ñu xuusee ca beneen wet gis nañ ne ñàkkum ngi fosoon na lool ci combat bi mais itam ci biir combat bu ñu ci xuusee ba ci biir biir diggante ki ngànk couronne bi ak ko bëggoon a jot di Siteu euh, naka nga ko jàngate waaw am na jàpp ne nekkutoon combat. waaw du loolu jàpp naa ni bala maa ñëw insécurité bi amoon ci avant làmb ji. ndax gis nañ benn biis BRT boo xam ne sax euh, dañoo toj benn ci vitre am. Mhm. muy loo xam ne dañ koy ñaaw ñaawlu wax dëgg yàlla nag euh, sénégalais yi war nañ ci xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax parce que nag bu dee dëkk la boo xam ne su ñu nee population bi fi nekk matiruñ wala nangam wala kenn kenn kenn jëkkati baat daan askan wi nangam. Mhm. Euh, ñu ne non da leen a saaga wala da leen a xas mais même askan boobu ñuy wulbatiku di def lu noonu. ça va beneen affaire lay doon xëy imaginel tey boo toogoon exemple laa jox tey boo toogoon nga ne. Hmm. askanu Sénégal wala nga ne euh, ndawu Sénégal yi comme ay mala. Hmm. xam nga da leen di naqari mais cest à que yenn actes yi mala la. maanaam boo doxee di nga gis luy mën a firndeel. merci beaucoup te boo ko waxee dañ naan noo kii dafa saaga nii dafa fekk bu xoolal da ngay dox tuuti rek nga gis acte bu mel noonu c'est-à-dire bis bu ñu defar ba mu baax. Hmm. def ci ay million ah. ay milliards sax. mais yow sa mbër bëri ji na lan la joteeg bis bii romb. dara maanaam ay act la maanaam am na loo xam bu ñu ko waxee nit du caage ne nit ki lool la mais acte yi muy def ay acte de barbarie la ñuy wax wala hmm. maanaam parce que da ngay gis ay acte la ñuy àttee nit hmm. acte yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel quoi luy maanaam mbir bu ca yoonam newul yoonam newu ca hmm. mbër mu bëree sa mbër bëri na daan na sa mbër bëri na daanu na loolu wax dëgg yàlla intérêt bi Sénégal yëpp bokk nag waru tax nga laal honnêtement nag pour ñu waxante dëgg rek. Hmm. te loolu gouvernement bi moo ci mën a jël ay ay mesures fermes nag. justement hmm. parce que mooy alalu jàmbur wala alalu réew boobu ku ko yàq da ko war a fay. Hmm. boo demee ba nag amoo loo ko fayee ñu dem corriger la mais am na loo xam ne yàq moom fay dong ko ci jaadu. fay kese moo ci jaadu. même au delà de yàqum bus bi gis nañu aussi bu làmb jotee ni ñuy. tegee fitna askan wi ak alali jàmbur yi alali di nangu amatoo droit dem Yoff wala amatoo droit dem. Pikine amatoo droit jaar fii. waaw maanaam di nangu alali jàmbur. Hmm. loolu ba kañ tamit te boo jékki-jékki woon jël ay mesures suspendre làmb ñu ne non culture bi naa yow te yow culture bi am na ñu nekk ci biti di ko yàq du yi nag. mbër yi moom ñoom bu ñëpp meloon ne mbëri problème du am. Hmm. waaw bu ñëpp meloon ne mbër yi problème parce que ne seen intérêt moo ci nekk. dafa am koo xam ne moom day topp mbër bi ah daanaka day mi quand hmm. lañ sanctionné fii ndax seeni supporters. waay dañuy yàqal mbër mi. mais d'une part est-ce que ñoom amuñ am ne ñaari adversaires yi la quand même li ñoom ñaar. mënul yoon ne wu ji fayeeku wuñu joxuñu leen sponsor joxuñu leen dara hmm. mais au moins nañ xam nga nañu defaraat jikko yi làmb taar na ba pare. mbër yi ay noobul lañ mbër yi or làmb ji rek nga leen di gis ju takk ay biling biling takk fii mais boo leen gisee or làmb ji. Mhm. mais nit gënu leen nite. ñun dañuy daje ñoom ñun ñoo bokk ak ñoom société bi. Mhm. mais biir làmb biir làmb la. mais nañu defaraat maanaam toogaay maanaam ñi topp mbër yi nañu dimbali mbër yi. maanaam làmb mën na am ba jeex ku la neex fu la neex. dem fu la neex jaar xolal dañ ko def comme xolal da ngay gis navetaan non ngay gis sax football ligue ligue da gis ñaar ñi faru ñu toog nii. Mhm, di waxtaan naanante naanante café bokk yëpp toog làmb ji euh, match bi jeex ñu ànd dem. mais Sénégal loolu loolu loolu dañ ko fi war a fexe moo nekk fi nag tamit. Mhm. parce que bu jaree ay correction mais état bi na ko def. cest à dajale acteurs yëpp wax leen li mën a ne. da leen di wax li man li nga xam ne moo mën a ne mën a continuer ndax mënuñu chaque dimanche nit ñi bu ñu waree liggéeyi nit ñi war a wàcc war a ñibbi nit ñi war a am dem seeti seeti bokk mais duñ ko mën. waay hmm. loolu mënta ne mënta continuer te Sénégal benn maas benn bomba gi fi buy nelaw boo xam ne Ousmane Sonko yeewoon na ko. Hmm. mooy bomb jeune ndaw ñi. Hmm. seen jot dafa bari. exactement dañoo amul liggéey. bàyyi boobu lu ñu mën a def ci góorgóorlu ci xëyu ndaw ñi ñu def ko parce que man gis nga fuul bi ma gis ñu topp Modou Lo démb jaar nii. Hmm. fuul bi ma gis ñu topp Siteu jaar ne hmm. ku mu yéemul man yéem na ma. te gis Ousmane ko bi mu cóollee même ndaw ñoo ñu la jël muure ko muure ko boppam. ci faaw nga laax ci Ousmane Sonko dama lay wax rek dafa am man li may wax ay factuel lu ay fee la damay ragal ëllëg keneen cóollee jëlaat ndaw ñoo ñu muure ko waat boppam. Hmm. te gis nga bomb bii di nelaw bu ñu fexewul wut ci solution bis bu ne waatee pëf mën na fee indi guerre civile. Hmm. te li ma lay wax nag bay boo nga bàyyi ci xel. bomb la boo xam ne mu ngi nelaw nañ fexe ndaw ñi am jot amuñ ci luñ téye ñu fexe ñu jéem leen wutal luñ téye. parce que hmm. ñii buñ amuñ ci luñ téye ñeneen ñi am ci luñ téye la dem nangu seen alal lu leer laa la wax buñ amul luñ jàpp. Hmm. yow mi am loo jàpp xëy yor sab salaire fayeeku rombu leen ñoom yow moom la ñuy jël li nga yor. maam kenn dootu nekk ci sécurité. jeex na tàkk. kon ba yeboo ñu def ci maanaam lu ñu mën lu ñu mën ba yeboo ñu def ko ci pour lii nii may seen muy muy raam balaa àgg ci ñag mais loolu ngeer dimanche la woon te ku ne dimanche ndaw yu bëri du ñu xëy peut-être looloo tax ñu waxuma loolu de toppoon dem seen dama ne quatre-vingt-quinze pour cent ci ñiy agressé dañu amul ci lu ñu jàpp ok loolu moom maa la ko wax quatre-vingt-quinze pour cent ñi dugg ci bis yi tafawaatee ka sàcc dañu yurul ci lu ñu jàpp billaahi trian moom mën nga am ay milliards de trian de bokkul c'est autre chose mais agression est-ce que amul risque la. risque la kañ surtout ndakaaru gi da nga am loote yow xamoo ki nga agressé mu ngi ak pistolet. Euh, xamoo ci dara parce que da ngaa jaaxle ñàkk nga pexe. Hmm. loolu nag du justifier ngay dem di jël alalu jàmbur. mais day bokk ci li nga xam ne bomb boobu bu maanaam gis nga li ma la wax fii rek nee naa nguur gi pour ñu yàgg fi ñu ci ñoom lay dépendre. Hmm. mooy bu ñu réglé xëyu ndaw ji ak dund bi. Hmm. <laughs> leneen lu ñu fi def kenn munu leen gagné. maam li li leen li leen fi tax a. durée crise économie ba ma waxoon rek moo leen fi mën a jëlee. yow am nga lu kenn amut nii ne loo def yaa tey loo def bëgg naa. Hmm. fexeel buñ xiif boo leen tàqalee xiif noppal nga sa njaboot sax mënoo leen yar fekk ñi ngi xiif faaw ñu def lu ñu war a def. Hmm. loolu daal appel bu ma leen lancer pour dimbalee leen ko ñu bàyyi ci xel gën cee focus. Hmm. te sensibiliser xale yi topp mbër yi dem ci làmb ñu waxtaan ak ñoom nawetaan bi tam euh, pareil. fuul yi sax gox yoo xamante ne jot supporter yi dem supporter yi dem noonu la. Hmm. violence bi dafa bari ci Sénégal léegi ba nga xam ne faw ñu indi ci ay mesures de correction yu sévère mesures yu sévère nag yu sévère sévère sévère. mais mesure mënul gën a sévère nga aj ki club bi wala équipe bi wala nga aj mbër mi pour man. non ba fa xanaa xam nga club boo ko ajee par supporter club bi bu defee recours. tribunal hmm. arbitrage. dañ koy àjji de wakaam a ngi nii seen incident bi amoon mbuur dañ leen a wàcc Ligue 2 mais bañ defee bañ defee euh, recours ca la ca tribunal arbitrage dañ leen a delloo si Ligue 1 bul yaakaar non loolu ba mbër mbër yi nga koy def mu jàll de mais club yi seen supporter di def ay dérive match bi nag mën nañ ko yàq ñu def rapport nga perte match bi waaye am na ci yoo xam ne ci mbedd bi bu ko club bi defee sa yoonu yoonu kii équipe bi néew ci de hmm. yooyu état du Sénégal la ko res moo ko war a lijjanti surveiller ko voilà loolu la nag. alors bu ñu desee ci combat bi. bu ñu desee ci biir combat bi nee nañ Modou daanu na. non Modou moo daan Siteu. parce que moo ah Siteu am na trois avertissements. ah nañ ni faaw ñu wax tamit nañ waxtaan ci réglement làmb. règlement làmb bu ngeen déclenché site bi ci biir. Hmm. ngeen daanu mu jeexee ci biti waaw. maanaam ngeen première site bi ngeen déclenché mu daanu ku fa daanu daanu mais deuxième site mënu fa amaat. c'est-à-dire. dafa am dafa am benn dafa am enceinte bi nii mooy saako yi ngay jëkk a gis ñu wërale ko. waaw am beneen saako bu ñu wërale. waaw ci ginnaaw. beneen fële nag son morte la moom foo boo yan woon mbër sànni ko fa sax daanu woon. Hmm. mooy fa suuf sa léegi dañ boo déclenché woon fii prise ngeen ànd ne rëpp ci fii. ci deuxième kii bi. saa boobaa ku daanu daanu parce que action bi ci biir la. commencé jeexee mais action bi Modou Lo bi mu ko déclenché ci biir sànni Siteu. Siteu dafa rënd ci ginnaaw def trois appuis fa la ba yam foofu arbitre day àtte foofu Siteu mënutul amaat parce que boobu yéen a ngi ca couloir bi nga xam ne foofu daanu rek lañ fa mën a def kenn mënu faa bëre loolu mooy règlement bi. Hmm. maanaam zone zone foofu saa kuy wër daanu rek lañ fa mën def kenn mënu faa bëri. jàpp nga ne recours Siteu du am non du dem fenn. du am suite non du am suite est-ce que waxoo waxi supporter yow kan nga supporter làmb man li wax règlement làmb la bu la neexee nga woo ku la neex. Hmm. ki ne ci làmb nga laaj ko zone boobu kenn du fa bëri. site rek moo fay am c'est-à-dire déclenché nga fii site bi teg Moodu mooy bi mu bi mu téye bi site téye loxo bi te Moodu manuel ko site rëpp ci ginnaaw moo yóbbu site ci biti jeex na hmm. léegi site boobu bu fekkoonte ne foofu la site daanoo wala foofu la Moodu daanoo dañ koy accordé dañ koy accordé mais bi site nekk ci ginnaaw Moodu dafa jóg di ko bëmëx pour defaat action hmm. boobu Moodu ngi ci kaw saako yi site ci bu ngeen xoolee site bi Moodu mu ngi ci kaw saako yi mooy hmm. première bi mais deuxième bi fekk na moom Siteu génn na Modou di continuer te foofu kenn du fa continuer action. mais ci ma ci même action bi la épaule Modou laale. non ci même action bi ñaari Siteu la boo xoolee loxo mu Siteu bi mu ko Modou sànnee. Hmm. dafa daan rëpp ci ginnaaw saa koy def trois appui. foofu bu defoon quatre appui jeex na mais trois la def foofu nag amul jekkali boo gisee arbitre bi sax mu ngi doon ñëw pour àtte hmm. foofu la Modou jóg pour bëmax ko. Siteu def rotation. mais benn tànku Siteu baa ngi ci kaw saako yi Modou teg épaule bi Siteu boobu kenn du ko accordé. kon mën nañ jàpp ne. non non waa li ma lay wax Mouhamed li ma lay wax kay. xanaa la xanaa leneen rax ci waaye bu dee règlement làmb rek. Hmm. foofu ma la wax kay wool ku la neex kenn du fa bëree. Siteu rek moo fay am su ngeen jàppante woon taxaw fa sax arbitre day àtte. day àtte parce que maanaam génn kenn bu génnee taxaw fa. génn taxaw dañuy àtte. ah parce que foofu boo déclenché action zone morte ba ngeen jëm. voilà parce que moo tax zone boobu kenn du fa bëre daanu rek lañ fay def tax Moodu moo fa yóbbu Siteu di jekkali ji nag jekkali boobu dañ ko fay bañ. Hmm. loolu tax arbitre bi bi mu demee ci vaar bi xool gis action bi bi ñu sànnee Siteu moom génn na ba ne ci zone de sécurité ba ma nga fa. léegi Moodu zone de sécurité boobu la bëggoon a bëri waat ak Siteu te foofu kenn du bëri moo tax Siteu rocceeku zone de sécurité xam nga trois appuis la fa am. boo amee trois appuis yaay ëpp doole ka ki nga xam ne mu ngi taxaw. moom hmm. trois appels la am ci la rocceeku nag Moodu di ko bëmëx mu rocceeku. mu rocceeku. waaw donc mun nañ jàpp mais suñu suñu hmm. dikkaatee ci làmb ji moom. waaw dañ waxante Siteu bëriwul. bëriwul. bëriwul gaa yi ne Siteu dafa héroïque démb ak. li mu def yëpp bëriwut mënuñu mënoo topp di génn saako yi rek. jàpp roi des arènes yóbbu ko. c'est la première fois c'est euh, la ñaari nit ñoo fi bëreeg roi des arènes di génn saako yi. muy. Yékini Tapha Guèye. waaw Siteu Modou Lo. boobu moom beneen affaire la yi. bii yar bii tamit noonu la mel de <laughs> ñii da ñi ma gis ñuy bëri roi des arènes dañu ñëw ërtal roi des arènes xeex ak moom xam ne li nga yor. man parce moom lañ jël si. li nga yor laa jël si. Siteu nag Modou Lo bu meloon comme keneen. bi Siteu génnee génnaat ay loxoom lay aj fanaan fa ba ngoon jot. ne ko boo ñëwul du ma ñëw. jeex na mais nag Modou Lo chaque jour day bëgg a bëggal ay amateuram. lu wér te wóor gis nga Bombardier ak Balla Gaye bañ ca tànkam. taxaw di ko xaar waaw jàpp ndiggam mais Modou yu fi ñàkk jom yooyu du ko nangoo def looloo tax Modou continuer di bëree di bëree di bëree di bëree. Ah, a mérité nag. il a mérité dafa mérité est-ce que am na loo xam ne daw la Mohamed loo xam ne daw la Modou ñu ko sa waay la. vérité. si te yaakaar nga muy daw kenn si làmb ak fi mu doon daw mais bu taxawoon. kuy daw dina jàpp nit ki yóbbu ko. bu taxawoon daanu. Siteu bi muy dóor Modou Lo génn nañ saako yi sax. Hmm. xeex bi ci ginnaaw saako yi. te loolu Modou sax ci la amee avertissement bi mu am. mais Siteu nañ waxante dëgg tamit Siteu bëriwul. on se di la vérité démb ñëwul pour daan Modou Lo bu ko daan Modou Lo indi woon day taxaw. Ama Baldé ñoom booy ñaar bi leen daan Modou Lo indee taxaw nañ xeex ak Modou Lo ba daanoo. Siteu hmm. nag daa daw ba daanu te bii mooy deuxième fois moom tamit il faut mu xoolaat mooy bii mooy deuxième fois contre Lac de Guiers. jël nañ lépp xëpp ko Lac de Guiers te alors que moo ëppoon avertissement Lac de Guiers. Hmm. Lac de daan na ko par avertissement mu ñëw répété waat ko ci Modou Lo après ma ngay yóotu Balla Gaye est-ce que du répété waat la même chose <laughs> loolu tamit mënul continuer. mais est-ce que avenir Ram war na ko mën a may mu jël Balla Gaye. Ah, bu ñu xoolee ci li mu lamb du maas dabante la mais Siteu faaw mu ñëw nag. sampol bu ponkal indi Siteu bañ xamoon. waaw. Hmm. indi Siteu bañ taxaw. wala boog dafa am problème ak ak ak ponkal yi que ci Lac la jaar. Sa Thiès la njëkk a jaar Sa gis nga. Hmm. mu si xam nga bi muy bëreeg Sa Thiès sax mu ngi doon reculer malgré Sa Thiès sax ci kawam rek. waaw waaw moom dawoon na ba génn saako yi mu bëreeg Sa Thiès Sa Thiès dàqaat ko jaxase ko foofu profité daan ko. waaw peut-être ma ne loolu est-ce du feemam arrière. jumloo adversaire am feem yooyu teg ci suuf nag tamit parce que bu demee ba gars yi naan la ci sa waay dañuy feemu comme yow de. Hmm. te boobaa day yàq laa boobaa bu ñu la gëddee nga génn saako yi waa ji day tegalee tànkam. aj gardam ba suba. yàq làmb ji amateur yi dagg seen biir duñ kontaan si te mbooloo mi ko topp na bëre rek bëri ci jom bëri ci fula dox kenn mere ko. Mhm. mais lu mu am jël. képp ku bëgg dëgg te àtte dëgg te yàlla tax gis naa paa boobu toogoon ci tele bi mooy entraîneur Reug Reug la xaw ma coach Reug moom la muy wax teguwul fenn nañ waxante dëgg nag si te démb puusut paasut position roi des arènes la yoroon moom démb comme si Siteu moo yoroon korom bi war ko protéger. mais am Nguer ku la dégg nga dafa mel ni lamb ji peut-être beIN Sport nga ko doon seetaane waaye li gars yi gis ak li nga gis du benn. mais man kan moo doon def ci saako yi nit ñi jàpp jàpp nañ ne si tëgg. jàmbaar la dem wane na ki ma doon si génn ci saako seen la xàmmee ma ko de kon ki ma doon seen ca saako ya moom kooku ku mu doon. ok ki arbitre yi doon jox avertissement kooku ku mu doon. Hmm. kon lan rek laay laaj kooku kan la man de xamuma kooku nu mu tudd kon. man daal li moo xam mooy wax dëgg yàlla làmb moom ki daan jël si xam nga bu doon kenn du ci roi des arènes nangu naa. waaw ah. mais yow kii couronne bi la yor ngeen mat si niil ma nga néegam mat lu ngeen mën a xew moom moo ko yor. nga am avertissement ma nga néegam. waaw. mais ah, yow yaay dem waroon nga mën a def ful la. waaw loolu la loolu la daan wax yox la jëli ko loolu moom moom moom waroon dem jëli ko. surtout nga am sens bu rëy. sa génération yore yaa nga dem ba temps bi des deux minutes. te yow am nga presque quatre avertissement. waay waay foofu man xawma lu tax Siteu accéléré. kenn da koo xamul deux minutes des yow nga ëppale avertissement. moo man la moom ah, position roi des arts Siteu xam nga lu mu bëree hmm. lu ma am ci Modou doy na ma. non nañ waxante dëgg nag. keroog maa ngi gis ñoom kii wax ko ko ñoom Fadam ak ñooñu di wax mu leen di attaqué kawam mais nag neexul mais ñoom Fadam dañu am raison ci kawam Siteu. Siteu mënoo rapport ñoom sa Fadam nga wax leen yenn wax yi ba pare ñoom nee nañ la sans combat kii la mën. Hmm. mais yow da ngay ñëw wala loolu la bëre waale tax muy muy arrière arrière arrière arrière arrière arrière mais léegi mel ni moo daan nag. dem rek. <laughs> en tout cas am na lu commencé xew si làmb ji aussi na ko mbëri bàyyi parce que tamit mm, làmb ak sport dafa ay chroniqueurs yoo xamante ne dañuy. am seen i critique dama koy Siteu dama koy dama donc jaruñu leen di menacer. xam nga dama bëgg booyam yi dagg li yónnee ko ko. mooy Siteu ku ne xam na ni manifestation yu amoon am na poussière bu mu ci taxawee woon ba ne jàmm gën du nangu kenn di ko taal. ba waa hmm. passif aman amante moom contentieux ba di ko saaga. bu mu menacé kenn. parce que gis nguur gii ma gis Siteu nag ko bëgg laa nguur gii ma gis képp amoon la porté plainte dañ lay dugal ci kaso bi. déedéet la ko wax ah, a a ñam di. ñi ñu ci porté plainte yépp ci nguur gi. dugal ah, nañ ah. ni ngay waxee dafay mel ni fayantoo la après. si fayantoo la moom non loolu moom c'est dama ko assumer ñi dañu fayantoo te Siteu posture boobu mu woon ci manifestation. taxawal Modou Lo bokk nañ ci li ko gën a waa posture gën a meree sax mooy posture boobu tamit mooy ànd bi ma àndoon Amadou Ba kon dama bëgg ñi ñi ñiy def sport ñëpp ñu xam leen te man Siteu ko estimé dama ko bëgg wax dëgg yàlla yàgg naa ko supporté mais dama ne loolu na ci def très très attention parce que nguur gi mu jàkkaar loolu la moo tax. su c'est du ragal mais nag dafa am avenir. maanaam menaces yi ñuy def jëmale voilà menaces yi ngay wax diw doo fi dugg. diw diw mën na fa jaar ñu kii otoom mu porté la plainte. Hmm. parce que danaan yaa incité nit ñu dal sama kaw. fekk ñii een nañ la toog di la xaar. dama man damay alerter rek. parce que hmm. damaa xam ñii may jàkkaar lool. moo tax man sax bugg gisoo bugguma am ak kenn contentieux ku bokkul passif ñi bokk passif moom ba ñu ma contentieux ñoom ñu portante plainte garaawul mais citoyen lambda koo xam ne muy problème mu xaalis. Hmm. muy problème mu jigéen muy problème mu yii bugguma ko am ak problème kenn nga xam ne buñ la porté plainte ñee dañ ciy profité réglé waale seen i compte fekk du plainte ba yow yaa leen soof loolu laay te ne ko na ko fansam yi dagg yónnee ko ko mu def ci très attention du ragal de mais moytu la ndax dafa am carrière am avenir wër a bëre. Hmm. te menace dañ koy aaye. dañ koy aaye loolu moom na ci def très très te ñoom buur géwél ak ñoom Fadam ak ñoom. seen xalaat la ñuy wax rek ñoo bokk ak ñoom ñoo bokk làmb. ba pare loolu mooy jaay làmb. ñoom ñoo bokk làmb. Hmm. làmb moom ñoom ñëpp ñoo ko bokk benn lañ. may nuyu Alaaji Bekaay nag keroog daf ma jox numéro am am ku ma ko dénk ma laajaat ko ko mu ne gisu ko dinaa fexe ku am numéro am te man ma koo yónnee daal soxla naa ko. numéro bekkaay waaw dañoo daje woon fële Ndeysaan dëkk bu sell ba. Touba wala Njaasaan Njaasaan Njaasaan lañ daje woon muy ku baax. Hmm. alaaji bekkaay ngeen waxtaan. waaye ku baax la. Hmm. xaritu waa Pastef. Hmm. ñoom it ba wuñu kenn seen moroomu papa yi rek la ñuy saaga. Nguer Nguer loo wax di nga ci laax Pastef yow même bu la laajoon <laughs> bu la waxoon kaay def conférence su diine sax gëm naa ne doo wax ba jeexal te te laaloo si waa mais am nañu jàpp ne aussi Euh, Modou Lo kenn mënutu koo daan ci làmb ji am ñu gis na peut-être waa axlu làmb doyal nañ ci Modou Lo comme roi des arènes yi fi jot a jaar dañu bëgg mu daan man démb moom li ma gisoon moom mooy gars yi bëggoon nañ mu daan waaw gars yi ni ñuy si noonu tamit ni ñuy reporté dafa gaaw gaaw de mm. da gis ne far gi day ëpp quoi waaw far gi day ëpp lool lool lool lool far gi daa ëpp nañ ko wàññi Sénégal far farloo gi moo koy yàq da ngay jox ku ne lim moom te kuy daw kenn du ko encouragé mm. waaw loolu day yokk ñàkk jom maanaam nit daw nga koy encouragé. Hmm. yaa ngi koy gën a encouragé pour mu ñàkk jom. Hmm. nit buñ ko dàqee dañu bëggoon Modou Lo ñàkk ñàkk. buñ ko dàq xam nga sama sama sama sama sama benn xarit bokk na ci lim daan def doom yi. suñ la dumaa nga ñëw mu dóoral la ne demal fayu ji. Hmm. buñ dóoree doom ji mu ñëw. da koy duma ne ko demal fayu ji. c'est-à-dire que moom waaw pour moom defet la sa doomam di dugg si ci kër gi ay jooy ndax moroomam la joteel hmm. xëy na keneen ku ko mag sax waaye xeexal sa moroom di jooy di ñëw boo ko defee mu duma waat la ni la demal nga fayu lan moo sabab ñu bëgg kon mu ah a su bëree cent millions tey daan <laughs> suba da ciy teg cinq wala dix bu ba daanaatee gannaaw su mu sekk ci fee xam nga Mohamed Ndao Tyson bokk na ci tax ñu xeex ko dafa ñëw fa fekk làmb dafa ñëw fekk làmb yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ba yóbbu ko 30 millions bi mu ko fayee ko ñu kar seen gémmiñ waaw ñu ñëw Bombardier ñëw jël làmb ji doxal tuut 2004 yi kini ñëw nag. Ah, waaw <laughs> yóbbu na fi làmb ji ba 175 millions. Mhm. kase bu mujj bi muy bëreeg bàll. yaakaar naa fay nañ ko 175 millions su ma juumut. waaw xaw ma 200 millions. te des fois li ñuy fay mbëri ngi ci làmb ji sax du doon benn tigóo ngi ci làmb ji yeneen sponsors yu mag yëpp ngi woon ci làmb ji. Mhm. moom daanoo bàll ñëw. Balla yàggul ci korong bi boobaag léegi koron bi kenn yàggu ci ku ñëw da ngay kii dem. waaw jàpp naa ne boo nag mooy dunde noonu da lay ba nga egsi toog. Hmm. même politiciens yi gisoon noonu la ñuy def ak ñoom de boo egsee rek toog noonu yi commencé yokk gisuma sama bopp ci <laughs> moom kat ba mu toogee ba tey gisuma dara joxuma dara sénégalais yi noonu. la ñuy sénégalais kuy wut la mën a àndal kuy wut. la ñuy àndal boo xasee ba am quelque culture la ñuy doon non gisoo ko léegi voiture tente lay dox. dafa sénégalais moo mën a seetlu. dañuy topp détail. dañ duñ bàyyi dara duñu bàyyi dara dara dara. mais man nag ci côté boobu gëm naa ne waa axlu làmb li dal sama équipe bi Barça moo leen da parce que boo xoolee ñoom dañu bëgg képp ku fay nekk di doon vedette nga jugee ci mas ma masia bi maanaam cest di dire ñoo lay formel seen bopp nga ñëw nekk di toj li ma gis nag ci waa axlu làmb mooy. Euh, lii keneen wala ñuy tudd roi des arènes tudd beneen dëkk. en tout cas mm-hmm. gëm naa ne bokk na lee bokk na lee ci ci li leen gën a xam naa bu ñu sañoon kiy doon roi des arènes. ab doomi Dakar cent pour cent lay doon et loolu tamit mënul nekk ci làmb ji parce que ñi ci bëri ñi ñëw di ut si daanaka dëkkuñu fi donc. loolu il ñu am compréhension boobu dal na dal na Bombardier bi muy bëri ak Balla bi yëpp Bombardier lañ faral. Mm-hmm. ñi jóge Mbour sax xaw ma ñetti kaar xaw ma ñeenti kaar maa ngi nuyu Alaaji Papa Dieng. Mm-hmm. ku xam làmb moom mooy toog ak Alaaji Bekaay. waaw Alaaji Papa Dieng ci biir géew bi ci maanaam bi ñu taxawee mu xool stade bi Alaaji Papa Dieng ne boo moytu tey Ndakaaru duñu reer. Mm-hmm. parce que ñëpp favori cent pour cent boom Balla Gaye te xam nga lu teguñu ko ci dara nag. Hmm. lu dañ koo faral rek nag. ndax ponkalum góor moo xam ne yow ëppoo ko poids ëppoo ko doole dàqoo ko dóor yow ñu ne la yaa ko mën dañ ne bari dóor. bëree dóor lan yow ñoom ñu bari ñoo sànq Balla gay keroog ba ni mu bëree mu bëree ko. mooy combat am ak Bombardier. waaw combat am ak Bombardier bokk na ci combat am yi gën a gën a gën a gën a a bokk na ci li ko sànq ba li mu bëree mu bëree ko. Hmm. te bépp adversaire buy teg pied gauche déclencher laaw croisé gauche exposé nga sa bopp. da ngay bu noonu buñ la moytoo yow da ngay wane wet sa lii ngay wane da ngay wane ginnaaw complètement adversaire bépp koy def même bépp combat. nga teg pied pied bi nga teg crochet bi ngay jiital nga laal ko soo ko perte bu dee adversaire bu mën a dóor la bu la dóoree da tëdd moom la Modou Lo defoon Eumeu Sène bu mu sànnee crochet boobu mu sëgg bi mu ko kiiyee bi mu ko dóoree dafa tëdd. surtout booy laaw sax. da ngay Sa Thiès bi mu ko defee booy ñang booy ñang daf koo éviter wër ko ndomba daan ko parce que crochet la boo xam ne warul jug laaw lii la war a dem direct te buy dem dafa war a fekk bii mu mu ngi taxaw di xaar pour boo ñëwee. Hmm. bu bii rombee boo dawee ñëw bii mën la gàttandu. suwat nag boo ko deful mooy yaa ngi sànq sax te mbër yu baree bari dañuy def loolu dañuy déclencher pied bi ñu teg ci la ñuy déclencher coup bi laaw au ñu jam direct de. Hmm. laaw la ñuy def. boo leen fentee doole ji. wala wala ñu dooree ko doole. loxo bi ñu jiital ñu dooree ko doole te boobu day neex a gis. loxo bi ne ci kanam day neex a gis bi ci ginnaaw nga mën a nëbb. d'accord moo tax Malick da daan nëbb bi ci ginnaaw bi ci kanam la lay def. nii Malick Niang waaw bi ci kanam lay def nii. nga def nii mu doog indi bi ci ginnaaw parce que boo defee nii da ñëwaat. Hmm. moom dóorkat la. waaw ah, loolu il ah, nga nekk xeexkat waaw foog nga nekk xeexkat dëgg dëgg dëgg. doo ko mën a xam mais crochet bi ne ci kanam. du hmm. am doole ba pare soo ko dóoree doole bu buñ la moytoo exposé nga sa bopp. nga wàcc waaw da wàcc. acca ngeer xam naa ne du ñàkk war nañ la mën a utal fi benn plateau spécial ngay waxtaan ak gars ci làmb parce li nga fi a a décortiquer eh, eh, ci bëre wax nga fi ci xeex donc eh, gëm naa ne bu ñu la booleeg Ousin wala Seydina Alioune si plateau ngeen di décortiquer làmb gars dinañ ci xam lu bëri te xam naa ne bu ñu la cuxoon ci football aussi noonu nga ci amee xam-xam waaw joueur nga woon d'accord alors ñu dugg ci ci ci sumb waxtaan bi waxtaanee wàllum politique ñu war a jëm ci installation wu assemblée nationale ñu gis ne war na daar en tout cas bu ñu proclamer résultat définitif yi ñu gaaw installé ko pour mën a dabb voté budget atum 2025 kon mën nañ jàpp ne ñi liggéey ñor na leen. waaw ah nuru na ko c'est-à-dire que waxati nañ daal. waxati nañ daal. Hmm. nañ nañ lañ nangoon rek man moom boo waxee damay da nga xam nga wax nu ma ko jàppee. Hmm. raw bu mu yeew sa bopp. boo wa waxee rek raw nga buum ba takk sa bopp léegi nag say jëf rek moo la mën a tekki parce que hmm. yaa wax ba yeew sa bopp ndax yaa ne mën naa mooy yeew nga sa bopp léegi nag pour tekki sa bopp da jëf. Hmm. jëf ji moo lay tekki mooy askan bi dañuy ñëw man sax contre naa li politiciens yi def ni contre naa nga hmm. gagné di jubilé loolu dama ko contre loolu ku nërta liggéeyee koy def ku xam li koy xaar du jubilé Omar bun Xataab bi ñu ko joxee xilaaf ak. jullit ñi. Hmm. moom da doon jooy. Hmm. ndax dafa xam li koy xaar. xam nga kañ lañ war a jubilé. Hmm. soo paree sa ñaari ay. xoolaat sa bopp boobaa bu la neexee sax jubilé. la seex Ibra doon wax xare ka daw dàqul ka dee dàqul jaloore borom mooy dem nettali ko. mais ñi gisoo leen ñu jubilé ngeer wala. ah ñi koy jubilé lañ dëkk ba léegi ñu ngi ci jubilé yi. kay ba léegi ñu ngi ci jubilé yeeg ndaataata laxee gundaa ndaat ak a kañ seen bopp tagg seen bopp. ay génie politique yi déggoo ko fi ay Messi teel na de. ah déet mais loolu observateur yu mel ni yow. jàngatkat yi ñuy jàngale bu ñu xoolee fu mu jaar ak lim fi def yëpp waxi kese la jàpp ne génie politique la lépp waxi kese la. déet mais moom moo moom moo wax ba ba ba ba. fan président waaw wax moo tax yeew na boppam ku yeew sa bopp waroo tala jubilé waroo tàngal sax ku lan la Messi da nga naan man yi bàyyi leen ba ma yeewee. sama bopp mënul tontu ñëpp nag ngeer. waaw d'accord dama ne def jàngatam. waxuma ngeer li ngay waxuma ko tuddee ko Messi wala tuddee ko. ñoo ko nar a sànq nag. waaw mais peut-être da naan bu mu leen déglu. wala bu mu ko jël en considération moom mënu ci dara. mu ngi leen di déglu moom. ok inévitable mu ngi leen di déglu. Hmm. du n'importe qui ñooñu ci wetam de. waaw am na ñoo xam bu ñu la taggee automatiquement day agsi parce que duñ n'importe qui sax bokkut ak man mi nga xam ne man euh, ànduma ak ci dara ma la taggee tam mooy loolu quand même léegi ni bëggee mu daar ba ñu installé assemblée bi pour mën a jëm si li nga xam ne moo di euh, waxtaanu budget beeg yeneen ya ca aju xam naa ne yooyu itam euh, dinañ ci gën a xuus euh, tout à l'heure waxtaanee ko bu baax a baax parce que aussi foofu la ca sali gis nañ waa PASTEF daal di fay amal benn séminaire ngir mën a tàggat ñi nga xam ne ñoo di ndaw ya leen war a teewal foofu la ca pencum ndaw réew ma Ousmane Sonko mu ngi fa teewoon moom gis na ne ndaw yi taxawaay bu ñu war a mën a am moom mooy fexe ba am assemblée ba dafay jubboowaat ak askan wi c'est-à-dire askan wi gis seen bopp ci ni assemblée nationale di doxee quoi qu'on puisse moom mu yëkkati message bu wax ko gis nañ ne mën nañ ne royukaay la ci ba mu nekkee assemblée nationale ak léegi wala yow jàppoo loolu. moom assemblée. ak la mu fa jot a waneeg taxawaay ba mu fa jot a am ak. assemblée kay xeex na fa xëccoo na fa. Mm-hmm. député bi fa njëkk a xeex de moom yaakaar naa moom la moom laa gis de moom Mbéri Sylla seen xeex ba. ah déet. benn da daan wax ba pare du diglu kenn après day dem yoonam mais Diouf du fa fa fa la mbajee woon xaw fa lañ ko mbajee woon. donc ah, du moom moo fa njëkk a xeex kii laa gis ku fa xeex Sonko. mais bu ñu taxee ci côté ci côté dénonciation. ci côté wax jàng waaw da ngay dénoncer loo xam askan wi gis nañ mais Sonko la ma fa doon dénoncer est mu ngi fi tege. la fa doon dénoncer est dëgg la gis nga dara dara dara dara lu ci lu ci yoon àtte ba ne nii la bi mu waxee ne assemblée du fay impôt. waaw léegi est-ce que loolu dëgg la woon. gars nee nañ dëgg. ñëpp indi seen i de salaire. ñu gis ne aussi tamit li jàngalekat yi di fay ci impôt moo ëpp li député yi di fay. déedéet loolu la kenn gisu ko léegi député ñaata la ñuy fay Ousmane Sonko demoon na sax ba ne est-ce que du 1500 la fay loolu la waxoon waxu. député yi bari gàddu seen bulletin salaire indi ko ba pare mu wax ne député yi député yi ñu ngi leen di waaj a jox <laughs> ku ne ba Moustapha Niass naan ko loolu man naan ba pare ne Moustapha ah, Niass. mii yëg na ko ah mais lim alerte moo tax ñu delluwaat si na ko kon loolu du alerte Moustapha Niass ne ko indi kaamil maa ngeen njàpp ma waat ne musuma ko dégg duggul sama bopp muy lu garaaw nag ne ko man fi ma toog maa ngeen njàpp nga indi kaamil léegi ma waat. ah loolu wax ak wax la rek ngeen. non ni nga def ba gëm Moustapha Niass est-ce que doo gëmee ñaar ñi wax ngay xool kii yàgg naa tuumaalaate kii yàggoo koo dégg muy wax lu dul dëgg man de mosuma dégg Moustapha Niass wax lu dul dëgg suñu maam jooju waaye Sonko moom tuuma yu dara fondewul moom yàgg na ko def. Hmm. tuuma yoo xam ne da koy topp ba ci biir mu nekk ci corniche bi kaay wuy ji mu nekk di wër mbedd yeeg yooyu yëpp moom yàgg na ko def. yàgg nga ko tuumaal kaay une commission d'enquête mu ne man damay dem gàmmu Fassou Mbodian du ma ñëw ci ko problème 94 milliards yi. kon yooyu kon mënuñu téye ay waxi Sonko daal fi ne nii mënatuñ ci téye dara jëfam la ñuy xaar mais wax ji moom wan romb dañu. mais buñ gisee soññ mu nekk lu rafet cest na député yi wane taxawaay boo xamante ne askan wi dinañu gis seen bopp biir assemblée nationale. soo ñëw woon na fi ci déclaration politique générale bi da fàtte bañ ko falee deful un mois mu ne nañ ko indil seen programme ministre yëpp day dem fi déclaration politique générale ñu ne ah lii des indi nii nii lañ ko doon waxee sax ñu naan lii de mu ngi doog a am. waaw kuñ fal. mooy de un mois muy waajal déclaration politique générale kon réew mi mu ngi jëm ci yoonu <laughs> émergence. Mm-hmm. ndekete yoo ñun ñu ngi reculer <laughs> ndekete Sonko bi bi mu tiiree frein à bi yaakaar day dem ndekete dafa dafa delloo rek arrière. <laughs> xoolal fu ñu mujjee tey ba tey déclaration politique ah, générale mais waxoon na ne nañu defaraat seen règlement intérieur waaw léegi mais da njëkkeewul foofu tamit fa mu njëkkee woon la dafa njëkk ne indi leen ma affaire la defar leen ma doog a ñëw léegi mënu toon a njëkkee defar leen bi Sonko kay ay soññeem moom bu ci sukkandiku de Mohamed donc na nga jàpp ne waxi kese lay doon waxi kese ah loolu laa ko jàppe ndax looloo fi daan am looloo am mais mënuma ko gëm te du ma tee xëy de tey ma wax la de gàtt gàtt Sonko bu ne woon suba bu leen xëy ku nekk naa la versel nangam sa compte man ma xëy naa liggéey de lu tax ah dama ko gëmut. xam nga koy damay liggéey ba gis message mu ne tëng mu ne ah sama waa ji wax na dëgg tey de wax na dëgg daal di def nii daal di xool nu ma def waaye duma te tee xëy de loolu nag man la engage hmm. du ma teree liggéey de. moom dama lay wax lu leer nag. léegi taxawee eh, hmm. bàkkee la nga ne seen huit milliards yi ba sànq suba dégg naa ñu ngi koy laajaat. 8 milliards ne daf ne dugal nañ fa 7 milliards 7 milliards moom mooy ni ñuy évacuer ndox mi ni ñuy indee ah, dund gi fa jot a ñëw ak ni ñu déployé yi fa jot a nekk eh, yëpp déedéet ngeer non non non ngeer na bu baax li nga maanaam déployé nañ 7 milliards pour assister leen 7 7 milliards ah, nga gis a ngi ñu ngi lay dégg yow ndox ma dellul boppam nga naan ku delloo ndox ma te Bakel bu ñu mere woon gars yi xanaa dina feeñ ci élection yi moo tax moo tax bugguma woon ñu laaj laaj gi ñoon laaj kay neexuma Hmm. laaj gi ñu doon laaj moo ma neexut. laaj gi doon laajaat milliards yi moo ma neexut. d'accord mais ñu gis ne dañu war a baral jéego yi pour mën a voter. waaw looloo jaadu 2025 looloo jaadu. mën a jublu nag ci mbiri gouverner ngeer mën a kontaan. man ne maa ngi toog di xaar xam nga xaar tàngu diglu tàngut. Hmm. man li may wax nii mu ngi dugg sama noppi xam nga lakku ma deful dara. waaw moo tax diglu méttiwut nañ diglu rek man moom seeni wax téendi naa ci. Hmm. comme soññee nañ. naa téye ci loolu rek comme Diomaye soññee ne conseil des ministres naa téye ci loolu Sonko soññee waat na naa téye ndi ci loolu. Hmm. du ma ne nag li ñu wax du dëgg waaye du ma tere xëy liggéey yi de moom bu doon lu ñuy joxe la buñ ko defee nag ma gis ko fii laay toogaat ne ah sant yàlla beneen bi tamit maa ngi retiré remerciement bi ma remercié woon Diomaye. ci compte compte presse bi ñu waxoon ne dañ ko débloqué. waaw ndekete kenn débloqué ko. déedéet kañ ñu koy ba tey. vraiment loolu moom réccu naa ko li ma ko remercié woon. non donc yow da nga waxoon bu dee am na. waaw waaw kay waaye yooyu yëpp moo tax retiré waat naa la ma la ma ci remerciement ba rek. <laughs> man mais xibaar ne du ma gërëm ku deful dara. non amut na ci presse laa ne seen compte yi mm. ba tey ñu ngi ko téye dañ waxante dëgg. d'accord te wax dëgg yàlla yooyu tamit day tas yaakaar la quoi nit ki boo dul tijji ay affaire am bàyyi ko rek bu ko bëggoon wax maa ngi tijji. mu daw songu compte ba fekk. mu est-ce moom moo ko tamit ah, est du xibaar tax nañ ma remercier ku ma wërta remercier te yooyu yëpp baaxul ci man dama war di gërëm ku def dara man réew mi dañ ma fee bàyyi pour may gërëm ko def dara uh-huh. képp ku fi def lu baax nañ na wax naa ko gërëm sant ko ku fi def safaan ba tamit naa ko jéebaane ba ñëpp yëg ko ndax mu jubbanti ko man posture boobu laa taxawee awma kenn problème hmm. d'accord euh, ngeer gis nañu aussi bu ñu lay présenté léegi dañ naan Nguer membre C221 waaw kay élection yi jeex na waaw gisuñ benn rapport boo leen ci def gisuñ ngeen def si benn observation lan mooy problème bi c'est c'est 221. non problème amu ci. parce que. non maanaam dafa mel ni fonctionnement bi demeetul noonu. parce que léegi sax dem nañ sax ba yirim mi ko créé woon. ngeer ko ci ëpp d'ailleurs bi toll nii d'ailleurs bërki démb rek man man man. su ma gis plan d'action yi ñuy waaj. justement voilà fallait que ñu def ndànk parce que ku ñëpp xam foo jëm doo egg te heure bi Sonko dañoo teg bët. mais yéen ak dayo bi ngeen am. waaw dayoo bi ni nit ñi ñuy dégg ne fa ñu ñuy bàyyi xel ne fa élection législative lu soxal askan wi am ba jeex defoo leen observation ci organisation yi tiré woo leen enseignement ci bi mu amee ba jeex waxoo leen ci violence yi. y a des mouvements yu bari yu fi nekk waxuñ loolu kon buñ ci cité rek ñun. non en tant société civile gis nga société civile. gis nga Y a marre société civile la waxu dara. si ñoom ñu ngi woon ci biir kuréel. non waxuma euh, ñu dara ci affaire yi parce que élection yi ñi war a def recours sax kenn deful recours. parce que dafa leer waaw ñëpp nee nañ leer naka léegi looy waxati. mais yéen ngeen wax. wax ci maanaam. remercier peut-être organisation bi ak leneen sa waay daal jaru ko de loolu yëpp jaru ko. garaawut am problème. gars yi nee nañ dafa mel ni fi mu toll nii yow rek yaa fa des de. waaw yirim sa dalaa mujjee jébbal la ngay. man man naa tudd ma tabaski ma tam xarit ma daayira ak ni ngeen fi jugee woon mu am avec grande pompe. ma ne la yow kay waajal ko journaliste nga. waay waaw waajal suñu événement yi di ñëw du ma la jox jour nag. lan moo siy njëkk a jiitu. ma ne ñi ngi wut daal benn endroit bu ñu dem fu ñu mel ne Dakar Arena. Hmm. wala yenn centre yi wala ci si <laughs> wala Grand Théâtre da ngeen di répondre Sonko deuxième non non pare ñun Sonko dañu tax a jóg. mouvement bi Dakar Arena am na borom essence kenn du tudd turam. soxla wuñu ko parce que Sonko ñun du suñu cible quand ñu Sénégal mooy suñu cible da ngeen di natt seen bopp. déedéet déedéet Sénégal mooy suñu cible Sonko tey bu bu demee bu demee ba taxaw ñu wan ne xam ne kii mu ngi liggéey réew mi. kii mu ngi teg réew mi ci yoon mais ki même bu mouvement bi taxawee di ko xeex sax man maay njëkk a lànk parce que man Sénégal moo ma ñor de xanaa man du ma jéppi Sonko ba ba jéppi wàlle Sénégal kame même mere mere Sonko mën naa mere Sonko mais bañu ma Sénégal Sonko tey bu taxawee maanaam ma gis ne moom mu ngi def lu raw ñi fi nekkoon liñ doon def mais lu ma lu man su ma taxawee ne Sonko kii man boobu man yàlla laay amanteel affaire boobaa ndax damay nekk naa fiq damay dugg ci ñi suñu borom di ay naa fiq mooy koo xam bu gisee lu baax ne bon na loolu baaxul tamit Mohamed ban bu ma xool bët boobu. mais yéen grand théâtre ne fi. waaw Marius Ndiaye nekk fi. lépp mu fépp mu def dama la jox dama la cibleel. dama ne la naa la mën nañ génn xaaral nee naa la mën nañ génn. ngeen war a dem sax monument ne fi ngeen song ji Dakar Arena. ngeen xam Dakar Arena ni ko Ousmane Sonko def. da da waxuma loolu de xam nga yow mën nga ñëw. demandé ah. fii joxuñu la. Hmm. nga demandé fee joxuñu la mais da ngay ciblé yu bari da nga naan suñu ma kiiwul fii fii ngay dem fii kii fii ngay dem fii fii fii fii ñun see suñu réunion bi ñu doon def ci hôtel bi foofu bari na euh, lieu yoo xam ne bi ñu demandé dañoo bañ. Hmm? bañ leen ko jox waaw. Ah, dañoo bañ loolu moom du yoon nag. waaw mais ñoo seen i lieu privé la bu la neexee ne deful joxuma la. alors que am nañ ah, fu ñu accordé d'accord te foofu def nañ fa réunion ñaari yoon benn bi presse bi ñëw na beneen bi presse bi ñëwuñu euh, entre ñun la woon ku ñëpp xam foo jëm doo egg te Ousmane Sonko dañoo teg bët suñu mouvement bi da cay teg bët <laughs> waaw mais Dakar naa lan lay doon. non loolu bàyyil bañ egg ci rek. comme du solo waxtaan lay doon non comme du solo waxtaan bi nañ bàyyi ba egg ci rek. te ñu ngi waaj dafa am ñoom tamit bëri dañuy xam ci ces deux cent vingt ay plainte tam. contre waaw contre euh, yenn présumé scandale yi fi am. yooyu buñ ci excès dinañ la parce que y de des euh, deux dix-sept avocats yoo xam ne collectif bi jël na. Hmm? pour le moment mettre en place waaw. parce que pour mën a entamer ay action judiciaire waaw. dossiers yi nga xam ne ñu ngi koy sàggane te yoon defu ci liggéeyam ñu gën ñu fàttali ko yoon rek yenn ñu def ay plant maanaam ngeer su ma la déggee da ngeen bëggu bëggu leen génn génn bojo bojo comme ni ko li ñuy def dégguñu la 2DL mooy devoir démocratie liberté loolu moo ñu tax a jug nag pour mu leer te loolu jomaay sax ànd mooy seen slogan. jomaay ànd na ci loolu mooy programme. devoir démocratie liberté. la war. ak li la war penc mi di ñoŋ li ñoŋal penc mi. li nga war. ak li ku nekk sañ def. ak li ku nekk sañ a def am foo ci yam waaw. Ah. liberté tam day. day dañ koy encadré day ñëwaale ci démocratie te liberté bu ëpp tamit anarchie la. démocratie bopp anarchie lay jur. mais ngeen dafa mel nii li ma la déggee ni ngeen wax boo leen génnaatee mooy raw seen première sortie bi. waaw loolu leer na dafa am quelques affaires yu ñu def plateforme bi tamit pareegul. ñu hmm. bari bëgg a bari na. mais plateforme bi gars yi ñu ngi ci defar affaire yi daal di def yàkkamti comme seen àdduna jeexagut mm-hmm. nañ ci ne rek. d'accord waaye mouvement bii moom. Mm. ci liy jubbanti réew mi ci la bokk. ñu yaakaar ne day tas suba. xamaguñ la xew nañu noppal. waaw. am nañu am nañu jàpp ne doo leen dem fenn. waaw yaa ba yàlla baax na parce bi ñu taxaw ñetti nit la déparé woon ci benn saal mujj ci benn député àgg ba fan <laughs> tamit. xëy na nag yoon waaw ñoom yoon wi ñu jaar nag ñun duñ fa jaar ndax man ñun man de wax dëgg ruus naa nekk di wax lu dul dëgg moom loolu rek mooy cas bi de. mais su ma déggee kon da ngeen a am xememteefu def politique. après non non mouvement citoyen mais mouvement citoyen day dem ba jël pouvoir Macron fu mu jaar. Hmm. Hmm? Hmm. da gis ñu bari fu ñu jaar. c'est pour ñu ci kanam ñii ñu jëm politiciens yi dañuy xew yi ñoom ñëpp ci yam nag. parce que nag way politique yi dañ ñoo xoj de. mooy li ngay duppee nouvelle génération. waaw waa politique yi dañ ñoo xoj de. ñoo gën a tuuti ci réew mi mais nit ñu xoje nii kenn xoju ñu ne dañ ñoo téye fii wax dëgg yàlla boo xoolaatee booy politique yi li ñuy teg kenn teguñu ko. te bu nguur jotee ñoom ñooy nguur wéeru seeni siis jël seeni doom yóbbu Europe kenn la ci doomam newul fii loolu tamit dañ cee war a taxaw seetlu quand même dañ cee war a taxaw seetlu. Hmm. waaw loolu rek la woon. mais kon mën nañ jàpp ne ñi may laaj man. parce que mm-hmm. li ma lay laaj yóbbante la. C221 mu ngi dund. te yéen a ngi waaj. tey la gën a dund tey la gën a dëgër bu doon ñaari tànk la yor xamal leen ni léegi yor na juróom-benni tànk. te ñi si nekkoon kenn manqué wu si ñëpp ah gisaguma ko ci manqué de. ñëpp a ngi woy di ko gëm. ñëpp a ngi woy di ko gëm. ñi ko gëmoon xam nga nag boo wootee ñëppay ñëw ku nekk li ko indi man sama bopp nag laa xam. si ñu ñëwoon am na ñu retiré wu. gisum guma ko de. alors loolu dañuy may ñu ñu sóobu ci beneen waxtaan parce que loolee gëm naa ne dina am liaison ak C221 mu di affaire Amir Abo bi xew léegi ñu tudd ci seen leader di Cheikh Yérim sekk loolee mbaa du dem ba taachal turu tour tour turu mouvement bi parce que la tudd ci mbiru abi Abo euh, Amir Abo Mbacké Mbacké mu mel ni mbiru dóor la mbiru luubal la mbiru escroquerie ñu tudd ci seen leader Yérim sekk dem ba seen ko ci ab vidéo loolu du taasal liggéeyub C221. non non vidéo vidéo mbir mi mu demee carrément bu dee am yoonam da cee lu tax. mbir moom kay Atépa Goudiaby lañ ci war a mën a maanaam bu dee ak njublang ak njuuj njaaj. Hmm. Atépa lañ ci war a tudd ko Cheikh Yérim Seck. mais fa Atépa feeñ fa la Cheikh Yérim feeñ. waaw dégguma la moo tax di defal promotion waa xamante ne nee nañ dóorkat la. déglu ma Atépa Goudiaby laa la wax kay moom bu dee waaja moom dóor na kenn ëppale ko ci. xam man mën naa mais fii Yérim laay wax. muy seen leader charismatique xaaral wax la ki ko tuumaal ki ko tuumaal doo ma tontu ci Yérim ba pare yow kan la Babacar Touré la. koo xam ne tàmmul wax dëgg kooku nag ay waxam waruñu ci sori quand même. ah Babacar Touré mu mës wax fii gars yi dañ see. lan teg ngeer muy lan ak lan. bëri de moom du dëgg moom. surtout ci mbiru aji Sarr ak bii de lu mu ca wax du dëgg. mbirum du dëgg. mbir mii li mu ca wax du dëgg man Atépa Goudiaby bi muy woo seex Yérim sekk hmm. man maa ngi toog téléphone bi seex ci ci oto bi da koy amplifier daf dañoo amoon ñu demoon bay ñëw bay dugg si Dakar mu woote moom moo wax seex ne jàpp nañ Amir moom moo wax seex ne pour mu wax booy gelongal nañ porter plainte Amir parce que Amir nag ñi mu wax ne da leen dóor dafa bari bi mu coupé matul deux minutes am benn xaritu Amir bu woo seex ne ko jàppale ma ci sa booy yi pour ñu bañ a porter plainte kii Amir. booy seex yi mooy waa. gelongal jàpp ci ñu bañ leen bañ ko porter plainte en attendant ñu régler problème Atepa après mu dinañ régler problème booy automatiquement bu ñu paree Matar Diop suba teel a ngi may dégg moo woowaat Cheikh Yérim pour di ko informer affaire bi Cheikh yëgu ci dara Cheikh wala mu ngi mel ne tey man ma boole la ak seen bàyyi leen ngeen dund ay at walla ay weeri weer man yëgu ma yéen a ngi mu ngi neex yëguma dara yëgu ma man maa ngi rek ci sama business yow nga xëy seen am ak yow problème nga ñëw nga ne ma noo yow la mais boo ma ko waxee ma saaga la dama naan la ba muy neex Atepa bi muy def bi muy tagg Amir te boobu anam kon mi ngi neex ah dafa metti rek te moom léegi bi muy woo Cheikh Yérim léegi woo bi pour lan la woon lu tax woowul seex ne ko yow yaa ma boole kii ba mu escroc quand même mais man dégguma Atepa wax loolu quand même kon Babacar Touré bu mu nangu Atepa di ko saraxe bu dee moo ko wax loolu bu mu ko nangu. na am crédibilité tuuti. mais ni nga raxasee Yérim est-ce que keneen mënu ko raxasee keneen parce que boo xoolee Yérim Seck ni mu taggee waa ji ci vidéo bi donc ñu gis ko dëgg ko mu nekk yëkkati ay kàddu yoo xamante ne daanaka peut-être mën nañ jàpp ne nuroo nag euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy kàddu yu Atepa yëkkati donc. loolu mën nañ nga man damaa fekkee. man problème bi yëguma woon nu mu demee damaa fekkee Atepa moo. ngeer yaa ngi fépp. parce que sëñ Saliou loolu moom man maa fekkee. waaw heure bi minute fi ñu jóge woon. Mm. man ak Cheikh Yérim Seck ñoo demoon seeti Ahmed Ndoye si bi xotaan ak seex Thiam bi ñuy dëpp la kii woote bi bi mu woote sax ñu ngi biir si waxtaan di dëpp di génn. waaw man li ma si jaax mooy Cheikh Yérim mi ñu gis ci vidéo muy tagg waaj. waaw d' accord ne la ma tax man la xamante saa n'a rien à voir ak complice man tey yow xam nga nag xamuma la man donte xam naa la ci wax lu la neex mais xamuma la jubati <laughs> pourtant mën naa la boole kenn man ñaata nit a ngi fii ci presse bi dama leen di jël boole leen ak nit ñuy liggéey moom. Hmm. ñuy liggéey ñoom du jeex du xaaj nag. mën naa la limal boo yu bari nii dama damay gis ku bëgg journaliste wax ma ko ma contacté la yónnee la numéro am ne xoolal diw mi ba xam seen mi sama seede la ci. Hmm. yàgg naa ko laaj ay numéro mu jox ma numéro kenn ma boole ko kenn. Hmm. mais man pare naa ca di quand même mais Atepa déggoo ñu ne la Amir jotoon na jox Atepa xaw ma 10 millions xaw ma dégg naa am ko koy wax. Hmm. ci benn business bu ñu seqoon est ce que ba mu ko joxee Atepa Atepa wax na ko Cheikh Yérim Cheikh Yérim yëgu ko woon. Atepa bi muy defar plan boobu pour pour pour kër buuru buuru buuru euh, saw ñee est-ce que seex yëg na ko seex yëgu ko ni kon léegi seex nu mu ci mën a dugge yow li nga seex ak waa ji yëpp seex moom xamu ci dara. mais est-ce que yoroo comme taxawaay. waxuma li ngay wax de déedéet maanaam li ko jiñ ne day setal. déedéet li ngay wax waxuma ko de dama ne man damaa man damaa def yooyu Babacar dama ne ko man Atepa bi muy woote maa ko fekke hmm. te Atepa loolu yëpp bi mu amee seen diggante moom yoonam newu ci de te Amir PV d'audition yi xanaa gisoo ko <laughs> Amir moom nee na moom seex wax dëgg yàlla moom yooyu yëpp sequ ko moom moom nee na sequt ak dara seex ci yooyu noonu affaire kii noonu moom mu munul dóor seex parce seex nante la ñoom waa gelongal la joteel ñoom ñoom Moussa ak ñoom kii yàlla na yàlla yërëm ña ca dem ak Matar Diop suba teel ak ñooñu geneen gaay ak Atepa mais seex moom lam yam ca digganteeg moom mooy liggéey pare. yow ñi ki nga séq Atépa mi bi léegi baa bi muy tàgg musa bi muy tàgg kii nag bi muy tàgg nu mu tëddi sax. Amir hmm. kon boobu mi ngi neex. xam nga yow xam nga mais mais yéen xam nga yow xam nga xam nga Atépa li mu def nii lu muy nuróol. Hmm. ñu may la jabar sëy bi neex ngay sëy sëy bi neex problème kenn déggu ko. waaw ah. mais sëy bi commencé naqari nga dem ne kan mag ma yoon kan yaa ma ko mayoon loolu mooy wax ji. d' accord doxalal après dinañ dinañu gën a <laughs> gën a xuusaat bu bu baax a baax ci ci ci wàllu woowu xam naa ne peut-être doo doo doo sore lool ak ak ak ak la ngay jiiñ Babacar Touré parce que yaa ngi jàpp ne dafay raxas ki nga xamante ne moo di Atepa yow itam gis nañ taxawaayu parce que tey par exemple. mais attends Babacar tegul sa loxo dara. lu dul ñaar ñi xamante ne kon kii ci complice la lool loolu doyul. Hmm. da ngay relater maanaam bi ñuy joxe xaalis bi diw fekke na ko pour nga nekk complice ci xaalis da ngay fekkee. wala nga proposer wala nga jël joxe wala nga influencer nit ki pour mu joxe wala nit ki tàggu la nga ne ko joxeel xam nga loolu mooy complice tàgguwoo ma yëgaloo ma yow daal ba ma la booleek moom nga di liggéey muy neex yëgu ma nga koy tagg naan noo kii or la kii jamaa la kii ku ba yow yëgu man yow yëpp yaay man man joxe naa sama yeneen nee naa la seex keroog lay doo a xam ne Amir daa dóor ñi. jikko boobu bu ko xamoon ci moom kay xam nga ne loolu du du seq ak moom yooyu mais keroog la ko xam mais seex bi mu décoré sa téléphone yokk ko non dafa tiit. da ne kan Amir xaaral. xam nga nu ma wax da kan Amir. Atepa ne ko waaw maa xamee na Atepa laa la wax mu mu mu bëggoon na booyee porte plainte Amir. booy gelo booy gelo ngali mais booy gelo ngali seen benn copain mu kooku moom xaw ma turam moom moo woo seex ci saa si ne ko pour naan na ñaan. naanaam benn copain Amir moo woo Cheikh ne kon ñaanal ma booy xam nga booy bu ñu porté woon plainte day gën a garaaw léegi nag moo tax baaba Babacar Touré dégg ko ci vidéo mu naan ko Amir tooñ na nga ñëw porté plainte di di woote wu naan na ñëpp ñëw xam nga loolu loolu jikkoy sax jullit jullit sax du def loolu c'est-à-dire nit am problème ngay wëri ñeneen pour gën a yokk problème bi xam nga loolu yëfi yéeféer la loolu du yëfi jullit jullit du def loolu de léegi nag Cheikh jeu boobu lañ ko bëggoon a dugal hmm. c'est-à-dire que comme am na influence ci booy ay booyam lañ pour mu wax leen ñu ñëw yokk ci xar mi karab léegi nag seex ci la contacté xam nga ñaar ñi décédé nañ kenn ki moom fi des gelangal si la contacté kenn ki ci saa si waxtaan ak moom wax ko li copain bee wax. kon mën nañ jàpp ne ba fii nii nii gelongal porté gul plainte. dégg gu mu ko def dégg ko te du ko def. parce que kee mu ngi ci porté te kee fay na Atépa sax wax ci sax lay wax may fay na ko xaalisam. mais problème mooy. yow ameel na ko la fay na léegi fi ne nii lu jar kaay leen porté plainte. problème bi mooy. ni ñu décrire. Amir Abo. cest à da doon defar image am pour mën a nax ay nit. Ah, bokk na si ñu ñu tudd ma attends moom laa foofu laay waxee. bokk na si ñu ñu tudd. ñi fi nekkoon ci régime mu Macky saal président Macky Sall bi mu fiy nekk. léegi tey bu fekkente ne ab Abdou Nguer nekk na ku ñu xam ku am influence. benn escroc jógee fële lëkkaloog moom Abdou Nguer raxas ko ba mu set ne kii kat ku jub la xaritu buuru màkk bi la nangam sàngam ba nit mën a jàppandu ci loolu gëm ko. Ah. mais loolu est-ce que dina tax ñu mën a seetal Cheikh Yérim Seck. bañ na kaa mën a seetal. nekk xaritu buuru màkk teew te jubadi jubadi gi kay la nëbbu. waaw moom laa wax. ma jubadi gi la nëbbu ma ne est-ce am. ma ma ne cas bii dal yére man dal na ma fi. Hmm. boole naa fekk nit nit mu jël alalam. mais hmm. man maa dem pour ma un gendarmerie te ko plainte ñu jàpp ko ma seetal sama der dem sama yoon. mais booba nag dafa fekkoon maa waxoon waa ji jox ko man maa ne woon waa ji jox ko xaalis bi. mais dégg nga fenn yii ñu ne yiri ma wax ne kii na ko jox Atepa. Atepa moo war a bàyyi Babacar mi muy fooye Babacar nag moom. Hmm. moom moom comme moo nangu loolu garaawut moom moo nangu na na nekk booy Atepa rek lu Atepa soxla bu ko mënta def defaloo ko ko wala lu Atepa du ko ko dëgg. est-ce que du journaliste bu def liggéeyam ba. am xibaar ban ma ne ban journaliste. waaw ah, Babacar nga may wax ay journaliste loolu dépassé na journaliste ak lii mag ak rakk la kay loolu nekkatu journalisme. Atépa dafa somb Babacar li ñu gis mu def ko si liggéey journaliste la. ci def ab dossier bu am parce que li mu wax du dëgg nga li wax du dëgg xam nga Yérim mun du nekk di porter plainte ak di dépassé wàcce boppam. ah mais Yérim tamit taskatu xibaar la. am na ay plateforme a yooyu du fa nekk di kii. PV de vision bi rek. war na ne tubaab nee di rien consent. waaye tout PV de bi wax na. abo mi ñu ak Atépa mi ñu auditionné amul kenn ci ñoo ñaar ku tudd Yérim bu dee benn Samba Boye yor seen YouTube am nag di ko tudd ah, Yérim du ci tontu quand wax dëgg yàlla. yow yéen ñaar ñi ko séq. Hmm. amul kenn ci yéen ñaar ku wax ne man maa def nangam d'accord. oui kon léegi man lu ci sama yoon. mais dayoo Yérim est-ce que waroon na ko mën a may tamit. non Yérim tudd ci ci ci genre mel xam nga man Yérim. Mm, wóolu na ma wóolu boo xam ne maa booleeg nit. parce que loolu laa ko wan nit ki li mu bëgg nga xam ko rek lay wan nag Mohamed. Hmm. man am na jikko yoo xam ne xamoo ko ci man am na jikko yoon xaw xawuma ko ci parce que da koy nëbbu léegi pour ànd bi yàgg faaw am ku nëbbu jikkoom. Hmm. jikko ji nag fa muy feeñee bett na ma baatu bett na ma lu ko indi nëbbu sa jikkoo ko indi ku wane woon sa jikko doo bett kenn bett na ma joo dégg nëbbu jikkoo ko indi. mais léegi dootuma ko defati ci am boo dégg mag di ko wax. jëf ja taxul la topp ca jëf jaa tax duma ya mais ak li li la concerné yow jàppoon ne da nga teel wax trop teel a setal yërim. noonu li ma li ma la wax le contraire ci am. leneen mënu ci am mënu cee xew. damay ragal la la daloon dalaat la de. non responsable pénal c'est hmm. individuel. lu wér te wóor bu ñu xuusee ci biir enquête li ma wër li ma wér te wóor li ma wér te wóor. su ma la booleeg nit ne la ku baax la ku jub la. te ba ngeen di joxante xaalis fekkewu ma. waxuma la jox ko yëguma tinuma bu la dóoree perte nga. Hmm. même bu ma kompaloo moom yow ñàkk nga parce que man waxuma la jox ko néew ma la bu ko jox sama yoon néewu ci yaa ko jox sa xaalis yaa xam. da nga ne soxla naa gaskat rek nga jël gaskat. boole ko moom yow yaa bi sax nekk ngeen ay ati at yëguma tinu ma ay ati at yéen a ngi def seen i affaire yëguma ah, tinu mu ngi doon neex kenn yëgu mu ngi doon neex ba yow am nga fi marché boo mën a defar xaw ma benn plan 800 millions yow encaissé boo xam ne ñu ne kër buur la xaw ma yow man yëgu ma seex bi mu ko yëgee daal tëgg gémmiñ gi di bi ñu ko waxee ne lu mel nii maanaam bi koppar génn na ci moom xoolal ci saa si da ne ma mais booy mais booy yi garaaw na de nee na man ñii man seeni affaire man musuma ci xam dara te waa booy bi tam ni mu ni mu seqee waa gelongal ñu ne da leen a jox benn programme boo xam ne baaxul. Hmm. pour ñu liggéey ci ñoom problème yooyu la am ñoom. aboo daal nante la moom tamit naa ndaanaan dëgg la <laughs> Matar Diop suba teel tamit man xaw ma lan la jotee am Amir moom ay mbiram moom it maa ngi ko dégg ma nga woo Yirim di ñaxtu. Hmm. loolu la parce que da nga di nga am sa waay wax dëgg yàlla mais da lay nëbbu jikkoom. mais loolu nag ça ne faut pas dire que ngay jël ay nit. di leen dox diw nangam diw man la ki diw man la diw man la diw man cas boobu nii nii ma lay wax rek am naa ko kaa boobu ma lay wax nii boole nit ak nit am naa ci kaa boo xam ne ko ki ma boolee ki ki ma ko booleel ay huit millions la ko dóor hmm? barke sëñ Saalew waaye xam nga la ma ca dimbali hmm. ba mu koy dóor yéeguma ko moo tax dañ ma caa rek ma saaga leen looloo ma ci may jàmm te waa ji da doon wax bu jógee États-Unis bu ñëwee day yóbbu kooku ci yoon ma ne ko man de seede rek laa la mën a defal seede mooy maa leen boole te lii ngeen ma wax la ca de sama yoon wu ci man xam man noonu laay joobe dama ko waxoon waa ji dama ne ko. waaw waa c'est 221 ak yéen. dama lay wax xam nga baax rek la <laughs> ngeen bëri bëri ay kii de. nga baax nitu nit ñi soo gis kuy kuy liggéey dara rek nga ne ko kaay am naa ko koy liggéey. Ah. man apporteur d'affaires laa. dangay soxla dara nga wax ma man la ah Mouhamed de mën na ko. Mm-hmm. soxoruma quand même ma ne Mohamed da mën na ko tee nga koo woo falaa yam de jox la numéro bi nga woote yéenay waxtaan seen prix yéenay waxaale muy neex may dem man laajuma commission sama yoon ñëw ci waaye bu cóolee mm. bu ngeen fa joxante dara te yëguma ko bu ngeen ñëwee ci man yéen ñaar ñëpp laay boole ok waaw man nii laay joobe man ragalumaa boole kenn kenn waaye na nga jël say matukaay ba joxe sa alal na nga xam ci li nga koy joxe bu dee sama loxo bii nga ko teg nag yow ñëwal laaj ma ko après dafa mel ni yaa ngi tontu indirectement coowal fukki million yi non coow yëpp laa la wax man loo ma jox rek. Hmm. ma téye ko ku ma ko jox dina ko goqi. dina ko goqi man maa raw Ousmane Sonko ci opération gox. fukki millions yi jotaatoon ngeen si. non loolu c'est histoire passée réglé nañ ko daal ba mu. mais temps na de temps yi. maa ngi ciy dégg ay ay ay mbir yu kii de. mbir yan kenn kenn waxu ci dara déggoo ci dara bàyyi sa dof dof lu bi sérieusement maa ngi ko ciy dégg. bay dégg ay audio ak yeneen yi ci aju. non non loolu loolu loolu du bokkut ak loolu de loolu c'est autre waaw bu kii ñëwee mu nettali la ko. yaa ngi may wan sa montre waaw bu kii ñëwee ne la ko nettali nu mu tuddati sax sama waa ji Aliou Badara. Euh. keroog Aliou interpellé na ma wax ko ma ne ko loolu ah, affaire la. ok waaw. bokkut loolu. non non bokkut ak loolu moom benn femme la bu newoon ci situation ma ñëw di ko conseiller. Hmm. moom mu mu mu enregistré ma. waaye sëy ba tas na. ngeer bëri ngay ruqoo ngeer damaa man damaa bëri damaa njaboot. man bi ma koy dégg ba dégg la ci suuf ma ne cey ngeer. sama waa ngi waxtaan ak moom maa ngi naan ko xam bu mu bëggoon a dugg ma ne ko bu dugg parce que kii baaxut. nii la mel nii la mel nii la mel booba ngoro gi neex na xam nga ngoro bu neexee. waaw moo taxit ba mu naqaree bañ ma ci tuddee dégg naa la ma leen wax. Hmm. loolu wax ji rek man ma bu naqaree buy neex mën naa bañ a yëg mais bu naqaree bu ma yëg goreel rek. ok waaw. mbiru Ron Yafet am na lu ci bees. nee nañ ku yàgg liggéeyal état bu Sénégal la. wax dëgg yàlla am na ci ay sance yu ñu jot a wane yoo xam te ne mu ngi ko doon doxal. tegoon ko ci règle de l'art ci lu ñu wax. waaw musul am ak affaire état bu Sénégal. Hmm. am na ñu jàpp ne sax looloy justifier xaalis bu ñu ne état bu Sénégal da ko ko yoreel. waaw am ci ay xibaar yu bees mën nga ñu ko baaxee. non parce parce que moom diggante bi mu am ak nguur gi mooy. dañ ne hmm. dafa am suuf suñ ko jox. te waruñu ko ko jox. ñu ne dañu arrêté travaux yi. moom mooy d'après am na ñu doon wax naan état bi koo nangu sax xam nga journaliste yi li tamit nañ ko xoolaat. waaw loolu la ñu wax de récupérer dañu arrêté travaux yi arrêté pour le moment pour saytu mais ñeene dañ na koo nangu te suuf boo xam ne borom da ko da ciy jël daf xaalis ba mu ko jënde hmm. bàyyi ba la mu ko euh, jënde da koo versé trésor public loolu am na traçabilité quand même loolu mënoo ñëw nangoo ko noonu ki ko ko attribué nañ ko defee amul benn këyit boo mën a xool mu nekk farce boo ko dee récupérer tamit da ngay jël mu ca defoon delloo ko ko bu doon da koo luubal daa def foo usage de foo da koo sàcc. Hmm. garaawul dañ ko kaa may garaawul wax dëgg yàlla kenn mayu ko ko alalam la ci def. te euh, marché la boo xam maanaam programme la boo xam ne Sénégal mën na cee gis boppam. Mhm. du yàgg ba mu yanu suuf si di ko yóbbu. donc su ma la déggee ni ñu ni ñu waxee mbir mi ak na mu xewee du benn. non du benn état bi xam nga arrêté woon na travaux yi ci corniche bi ci bari. waaw ñëpp fa léegi travaux am da caa bokk nag. mais lii profil naan état bi nangu na nangu état nangu ma ne état nangoogul suufu kenn parce que xamagul ku sàcc. état bi nangoogul suufu kenn laa wax ndax gisul xamagul kan moo sàcc. borom suuf yi dañoo am seeni suuf amee ko légalement lu ci état soxla day yëkkati seen alal delloo la ko. Hmm. am déet. nii lañ xam. d'accord kon maanaam journaliste yi nañu xoolaat seenu mbind ma te dem ci dem ci source bi. man hmm. ingénieur u Renouvelle Fête bi tey suba daje nañ nee naa la nee nga ma yow sax ku may dajeel ci restaurant yi rek la ñuy daje. waaw man moom ñaare ku may dajeel ci restaurant yi la daje. <laughs> bëri naa ñi mu koy wax daal daal ci sa waa ji daje naa moom restaurant sàngam restaurant sàngam. waaw restaurant sàngam restaurant yi nga mën a fekk parce que yu bari <laughs> affaire yi daal nañ ci def ndànk te xam ne yenn affaire te nguur gi man dama leen di ñaax bu ñu topp diw xaritu Macky Sall la diw xaritu Macky Sall la diw xaritu diw Macky Sall non non sa waay yooyu doxalutum réew Macky Sall li mu defoon boo gisee ne lii amul benn problème lu baax la mais ñoŋal ko mu dem boo gisee ne baaxul nga jubanti joyanti. waaye tamit loolu tekkiwul ne xaalisu ja alalu askan wi duñ duñ duñ. mais yow nga yàggal liggéeyal sax mu liggéeyal la gis nga bâtiment yi ma la yónnee fii lim liggéey mais lii dul ndaw te soo ko dégg ak état du Sénégal ñu xëcco hmm. kii tey yaakaar naa kii dafa dem sax ba bokk ci ci li contribuer ci économie Sénégal bokk na ci moom li defar réewum Sénégal. parce que bari na ñu bari fii ay marché nga leen jox ñu dóor xaalis ba gendarmerie ngeen ni mu jéeg police egg naag eggul ñi ngi wax université bi Sonko doon wax fee nee nañ xaaju got a egg te dugal nañ fa alal bañ doon wax Sédhiou ñu ne eggagul dugal nañ fa alal mais ñépp ñiy tabax yooyu yóbbu pourtant genn wàll ay sénégalais yor marché boobu de xoolal moom doomu réewu jàmbur moom mu mën a jël lii liggéey ko ci réew mi te mosoo koo dégg wala tardement wala dara hmm. kooku taxawaayam nag ci réew mi wax dëgg yàlla loolu war nañ ko rafetlu quand même Macky Sall nag du xaritam yépp a dëng te réew mi nañ may ëpp am euh, d'affaires yi jàmm tuuti homme d'affaires yi ñoo yor daanaka ñoo yor économie de homme d'affaires gaaw koo yóbbu kaso baaxul. baaxul waaw. Euh, dernière question Abdou Nguer mbiru aadama gay ak Moustapha Diakhaté normalement tey ci altine ji lañ leen war a déférer foofu la ca parquet rawatina ci tribunal bu grande instance bu Dakar moom journaliste bi ak ki nga ne moo di euh, Moustapha jaxate waa APR bind ab kayit ñaawlu ni leen jàppee jàpp ne teguwul ci dara ay waxu suñu naxa saxandang rek. non Adama Gaye c'est exceptionnel. daam ko gaañu mu ne daa dañ koo rey waaye loolu pour procureur moo def erreur bi naa ci ñëw Adama Gaye kii Moustapha Diakhaté li mu wax baatu wax xam nga bëgg baatu alko ñu jàng arab ñu firi ko ci olof mooy lan xam mooy lan. réer askan wi dañoo alko mooy askan wi dañoo réer loolu mooy baatu alko boo demee ci sindi di sëñ Tuubaa nga ko fi bind naan yow yàlla suñu borom bu ma bàyyeeg sama bakkan kon damay alko damay réer bakkan boo ko bàyyeeg borom da koy yóbbu fu kenn xamul. Hmm. baat maanaam baat yi bu ñu ko diisal. te lool lañ koy toppee. Ah, ah, loolu rek la wax de. askan mu mën a jël sa kart sànnil ko ku doon taal sama réew ku doon li da ngaa àll loolu la wax léegi loolu baatu alko bi laa bëgg baat boobu rek mooy problème bi alako googu ñu jël ba ku réyal mooy ku réer bi réyul léegi nag par rapport ak baatu ñoom docteur Diallo yi ñu wax ay saagay ndey euh, kii imam bi ñu fi tegoon fii ki doon wax naan rey leen presse bi àndut ak yéen ñaandu ak yéen ngeen jox leen xaalis. ah am am moom tamit mu ne jigéen ju wuteel Amadou Ba doomee raam nga xam nga yooyu yëpp am na fi kenn waxul ah, noonu yow nañ bàyyi mu sedd nañ bàyyi seen yii tamit li valable pour ñii moo valable pour ñee Cheikh Thioro ne ku bëggul ku contre Sonko sa ndey liggéeyul kenn waxu ko dara. Hmm. mais yooyu man est-ce man yi may wax nii est-ce que jomaay mu ngi koy dégg ñi yor numéro jomaay nañuy dagg yi yónnee ko ko. muy xam ne waa këram li la ñuy wax non pour mu xam ne waa këram li li lay la ñuy wax mu mën leen arrêté quand mais say waa kër di wax lu leen neex kumba am na ndey dama dégg ñu naan kumba am ndey kumba amul ndey ma ne ñaari kumba yépp am ndey jomaay mii seen bàyyi leen yamale wut hmm. waaw ñaari kumba yi am nañ ndey jomaayee seen bàyyi da leen a yamale wut hmm. mooy ñun sénégalais yi féete ne ak ñu féete passif ñaari kumba lañ ñun ñëpp am ndey jomaayee suñ bàyyi moo ñu respect moo ñu yamale wut nañu yamale mbiru Adama Gaye fan nga waxee ne procureur Adama Gaye xam nga procureur fii laa toogoon dox xam ma ne hmm. bi mu bindee ne du mort naturel rek la ubbi ay question yu baree baree baree yow du mort naturel te nangu woo li ko rey mais yow dangay tax nit ñi ñenn ñi di bàkkaaru sax ñenn ñi di xalaat lu ñaaw moom bi mu nee ba xam ne li du mort naturel te mënuma koo wax xolal bu mu ko communiquer bu mu def communiqué de la presse looloo tax aadama Gaye mii di ci xuus man loolu moo tax ba mu ko waxee laa ne ah procureur de la république def na erreur. Hmm. ndax erreur bi mu def mooy dafa war a xam population Sénégal nan lañ mel. population Sénégal dañoo xaw a yor jikkoy kajoor kajoor xam nga jikkoy kajoor kajoor mooy lan. mooy lan kajoor kajoor nga wax bàyyi ko. moom daa war di yëg kajoor kajoor li koy booleeg àndandoo mooy bu bu mu yëg bu yëgul rek ngeen indi problème na ko yëg eh bi mu xoolee xam ne lii neexul ba neexul du mort naturel mais munu ko wax xam nga lu ko waroon a. Hmm. woo famille bi nang waxtaan ak ñoom ci dalak tey leen ni leen dama bëgg affaire yam fii ñu def ko comme mort naturel. waaw mu génn leen non c'est que mort naturel lañ pare ca dem si yoon. mais soo nee jàpp ne waroon na xuus. seen baamu bàyyi rek Sénégal laa bëgg maanaam procureur laa bëgg ñu jàngal ko sénégalais yi nu mel. sénégalais yi xamatuñ ay point d'interrogation. amul lees waxul. non point d'interrogation xamu ko de boo xasee dugal seen bopp dut rek indil nga leen problème dañu dañ kumpa. Hmm. léegi nag ba mu defee loolu xëy na nag kii la ci jublu woon rek maanaam pour wax nit ñi di moo naturel mais mënu ko wax yooyu mais sénégale yi gisewuñ foofu moo tax Adama gay mi xuus te léegi lam doon bañ nar naa am de bu bàyyiwul gay la mu doon bañ day am xam nga lu mu bañ lu mu doon. mooy mooy siiwal gam ko doon bañ a day siiw par parce que boo poursuivre Adama Gaye ngir diffusion de fausse nouvelle c'est-à-dire Adama Gaye nee na dañ koo rey te ñi ko rey ngi ci dëkk bi nga ne ko waxoo dëgg ubbi nga beneen fenêtre. Mhm. xam ma beneen fenêtre ba nga ubbi nu mu tudd. nu mu tudd fenêtre u benn comme Adama Gaye waxul dëgg. Mhm. waa ji kenn reyu ko ah. Mhm. kon sii ka waa ji moo rey boppam loolu la nit ñi di xalaat. léegi nag nga yóbbu Adama gay tribunal àtte ko. Adama Gaye bu indee ne waa ji dañ koo rey yow faaw nga ne ko reyuñu ko indi teg. la nga doon bañ nag dem ci penc ma moo tax jàpp adama gay loolu la la nga doon bañ mu feeñ mooy ñëw feeñ. mënuñ jàpp ne pour kaaraangeem ma tax ñu. jàpp non du kaara kaaraangeem lan kan moo fi aadama gay kan moo ko tudd. aadama gay set Macky Sall la doon jéem a sosal rek <laughs> Macky la doon sosal waaye tamit aadama li tax ñu jàpp ko. Hmm. loolu tamit lii xam nga sa waay ay prétexte la rek. Abbas Fall ak 5 milliards yéen a ngi ko fàtte xam nañ ne buñ ci jàppee aadama day xaw a ridicule Adama def na penalty nag ñu exploité ko. waaye déedéet waaye Abdou li nga wax ni simple na trop. Ibrahima Sall daa wax lu raw li Adama wax te jàppuñu ko Ibrahima Sall ne gendarme yi réer bi di jëbaatee Fulbert xam na nu ñu leen faate xam na bañ jël nañ leen teg ba faat leen loolu gën a garaaw. mais amaana dañoo yegseeguñ ci dossier boobu bu ñu ko yegsee dinañ ko woo en que Adama ah, ah, ah, dossier bi déedéet koy jàpp léegi non non xam nga lu tax Ismaïla Madior Fall loolu la waxoon waa këram ba ko porte pénal retiré loolu hmm. dafa waxoon ne dossier bi amnistie bi yóbbu na ko mais après dafa ñëw rectifié at amnistie génnewul dossier boobu de hmm. loolu bokkul ci amnistie bi affaire Didier Badji ak Fulbert ay gendarme yu ñu war a leeral seeni mbir la te Ibrahima Sall nee na xam na te moom it déedéet ba bari nee xam na ay ñaari gendarme yu dugal ci bëri ko taal leen nee na moom xamoon na loolu hmm. waaw yu garaaw ay ay nee na ay manifestants yoo xam dañ leen a rey ci géej gi yooyu yëpp xamoon na ko kenn woowu ko moo tax ma la Adama Gaye mi na joojo matul jooyoo mer mu yàgg la <laughs> tuumaal na Abbas 5 milliards Abbas xamul fu muy jaar. équation ah, déedéet waay ngeen ngeen ngeen loolu oyof na trop waay ah, ngeen tamit nag. de loolu laa gis sama gis-gis la. bu yem rek woon ko plainte ci mbir moom boobu tamit c'est ridicule. waa ngeer lu tax Samuel Sarr mu ngi liggéey ak état du Sénégal. Hmm. ci boo xam ne moom bi muy dem du n'est-ce pas mook directeur Sénélec a àndoon kooku dawul te tàngoona bi muy dem kooku bàyyil ba mu ñëw këram nga convoqué ko mu ñëw mais yow état du Sénégal yow lay liggéeyal leer na leen bu paree di nga ko fay xaalisam mais partenaire bi mu ko séqal bu ñëwee porte plainte nga enquête ba xam ne kii yoreel na ko mais boo koy fay nga teq ko ci jox ko partenaire bi pour protéger pour protéger kiy liggéey sa chantier bi. Hmm. gënul yomb waaye ancien régime bi la bokkoon rek nii ni ñu ko bëgg a jàppee yomb na de c'est très simple ah man Mouhamed yaay sama patron. Hmm. maak seen yaay suñu patron. Hmm. ameel nga ñu xaalis déjà suñu liggéey ñun ñaar ameelante nañ. te yaa ñu war a àtte yaa ñu war a tëj. mais mën nga taxaw régler ko kenn du dem kaso parce que yaa yor sunu alal bu dee def am na. noonu nga ko jàngatee yow. moo gën a yomb di Samuel continue liggéeyam waa ji continue liggéeyam kenn mënu cee rëcc ndax yow yaa yow alal ji yaa ko téye te yaay justice yaa war a àtte. boobaa nag boo jëlee alal ji fay sami ne ko fayal kii mu bañ boo ko dugalee ci kaso bi dara bu fekkee sami amel na ko sami tamit porté ko plainte. ok loolu kese la ni <laughs> dossiers yi nañ ko xoolaat da jàpp ne am na am na si lu ci. day am dossiers ñaar ñu séq liggéey liggéey bi jeexagul fayaguñ leen bu doon liggéey bi jeex na bañ fay Samuel Sarr ba mu dem voilà liggéey bi jeexagul ñu ngi ci ñu ne quatre-vingt-dix-sept pour cent xaw ma pour cent mu pare na parce que kon liggéey bi léegi mu pare. Hmm. Samuel voyage bi mu defoon pour liggéey bee taxoon mu dem. mooy bi mu demee waaw liggéey bi tax ko yóbbuwoon ànd ak directeur Sénélec kooku daa daw. exi ah, kii nga ne ko kërtim genre humiliation la quand même nañ bàyyi kilifa yi ñu humilier loolu nga jàpp ah man la lool laa gis. amoon naa mbégte ànd ak yow ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal réew mi jàmm di wax jomaay na bàyyi xel ci waa këram yi li ñu def ci réew mi tamit wax dëgg yàlla. comme lan lim si ñaar ba waaw gis wax lim naa ko fi ba sonn. waaw jëf kontaan naa. jaajëf Abdou Nguer yéen itam amoon nañu mbégte ànd ak yéen internet yi di leen jaajëfal dig leen daje beneen yoon ci beneen jotaay jaa ngeen jëf Ndeye Fatou Seck mu nekkoon ci xarale gi feggoog Badji ak Jamanka